mu ngi koo haskan ci xuuta dimisqa mooy tooli dimisqa yi maqaama la bu xam ne dafa am ñaan gum cee jàngale ñaan gi siiwee ñaan ak rufaat dana am njëriñ yum ci wax ñaan gi nag xam ne ne lépp lépp lum ci wax moom dëgg la defee nañ ko tajriba nu ne waaye wér rek lañ ci seetlu léegi nag fan la ko jëlee moom man xaw ma ko dëgg-dëgg dana mu baax a ndax tuddoowut ne moom moo ko ñaan dëgg-dëgg waaye xaskane bu ko kenn nit nag loolu moo tax mu ko jëlee dëgg-dëgg ndax ñaanam la wala sax boo fa mu ko jëlee loolu daal moom xaw ma ci lu leer a leer mu ne hakka nettali na alxaarisu xaaris ibnu hammaamin xaal mu ne saxastu génnoon naa min al iraqi tukkee xiraq ilal huutati jëm fuñ naan huuta mooy tooli demis xayr booba demis xayr gi digg naa xay xay wa ana te man booba soo din borom fas bu gàtt kawar la ngir peppe marbotatin wari wu ñu xeew wajidatin ak koom marbotatin gëri gu ñu ñee mu ne boobu yoon yomb na ma xam naa waruwaay woo baax te itam su ma loxo daraan ci tëq sax su ma bëgg a jox xam yóbbu ma ne nag damay dem xeeraat maa ngi am fas woo xam ne yefal naa ko ba mu man rek la fi neexal su ma bëggee dem xeewi dem ah maa ngi am koom goo xam ne su ma yoon la yoon way war a soxla ci alal a topp dooga du ma jafe xam naa daal demukaay te itam yóbbal yomb na ma waana te man soo jur din borom fas wu gàtt kawar laa ngir peppe mar bootatin ware wu ñu xeew mooy xam naa waru waaye wu tax dem yomb ma wajitatin ak koo max bootatin gëre gu ñu ñee naka noonu itam am na lu ma yore lu tax yóbbal yomb ma yul yii nii dana ma soxlaal wala dana ma foloo dana ma foloo xulubu daree féex a xel xel mu dal mi ma am xamu yu may jaaxal léeg-léeg mu dugal ma ci loo xam ne des naa ñor wayes da yii dana ma bégloo xubóolu daree fees ak xenaat su ma xool si fees dell ah saa su ma bëggee mu yomb tax na léeg-léeg may dox doxalinu yoo xam ne Ah, ku ne xam ne kii moom doxalinu man-man rek la doxalinu ñàkk a lot rek la falamma balaxtuha ba ma jotee dimis xaar ba da siqi nafsi ci gannaaw son nag bakkan way daay lancé ak songong loo sama gélém léegi ba ma demee ba àgg dimis xaar fekk balaa maa àgg sonn naa sama war waay itam bi loolu amee alfaytuha fekk naa ko moom dimit xa kama tasifuha ni ki koy mellalee ala sunu lammiñ na ma ko daan déggee ne ihda jannati dunia sallaw nun la ko fekk mu mel wa fiha nekk na ja maa lu xam ne tastahi dana ko sopp alam fusu bakkan yi wa taladdu ak la dana ko neexlu ala yunub so bëggee seetaan bu rafet am na fa soo bëggee lekk lu neex itam am na fa moom daal nañ ko waxee ihda jannati dunia noonu daal la demee fa sakartu ma daal de sant yaddan na waa xewal ak sori ma sant yàlla ci xewal gi ma xamee ci wax ne naka jekk njëriñam jëde lii ca la wajaraytu ma talaqan am lef maal hawa ànd ak bànneex ah bu ko defee ma def nu nit kuy door a gis ko neex rek ah daja bànneexu may itam dewee ci su ma sago ndax am naa dara mu bëgg a jot du ko wajaraytu wajaraytu talaqan am lef maal hawa ànd ak bànneex watafiqtu ma afuddu di dajji fiiha ci dimis xar mooy xuuta xutuma saxawaate kaste yi bànneex yu bëri yoo ne dal naa ko nimse te gis ne mën naa fii ah ma de ko jëfandikoo fii waaye que ni may kotti xutuma la daat yi kottitee fi bànneex yi nekk bi di dundee dundin wu neex rek ilaa saraxa ba sóobu safrun mbooloo mu daa tukki fil iraq ci jublu iraq ba fii ma nekk ci xuuta xam ñuy waajalam tukki di am mbooloo ne dañoo dem iraq wa qad ittafaqtu te mbir moom xiqi naa ximmaleku naa min al iraq ci jéggi dayo te booba xëy na dëkk bi ni meloon ci man melatu ko léegi tuux naa yi ma fekkoon xam naa ci doyal sama xelan ci sama gannaaw faatu nii nemmeeku ma xeetun hmm. aji nemmeeku hmm. min tadkaril watani ci hmm. fàttaleku dëkk wal xanin ak binni ilal atani jëm ci dingire bi sama xel daj sama dëkk ndax loolu mooy xaada ci nit ak dëkkam wa hababat awtaana rijaali ilayhimu maaribu qadaa shababu hunalika ayaamu sabibati moo dàq ci marahilul hayaat yi nit ñi nag ci seeni dëkk lañ koy jeexalee moo tax seeni dëkk moo leen di dàqal fu ne ci àddina bi ida zakaroo awtaanahum sakarat humu hooda siba fiiha hooda siba fiiha fahannoo li salika gis nga ko mu ne wa fahaada nii nemmeeku ma xeedun aji nemmeeku min tazkaril watani ci fàttaleku dëkk wal xaniin ak binni ilal atani jëm ci dingire fa qawattu ma dal di daaneel mooy ma màbb ma daaneel xiyaamal xay bëtti bergen di fàddu booba daal booba tukki wa asajtu ma tegal jawaadal aw bëtti naaru góoru ñibi ne maa ngi booba laa doogu ci ñi bi di ànd ak nit ñi wala maataahabat ba waajee nag arrifaaku settiti wasata ba temat alittifaaku dëppoo ba nga xamee ne ba àggal fi noom dogu moom xam alax naa ñu ragal minal masiri ci dox doona tisaabil xabiiri walis xàndaaleeg aji kondiir xabiir mooy ki la jiite ci yoon delawan foo war a jaar dala jokkale ñi nga war a jokkaloon ba àgg ba nga àgg fa nga jëm ñu xaw a ragal ñun ñii ay tukki kat lañ ay baadoolo lañ nii rek ànd ñun dong dong dong war a bawoo fii di wisqa ba àgg xera xamee xalal juñ toll dajaat ci ay dajaat dajaat itam ci ay xàll yu ñàng dajaat ci ay frontière gëlëm ci àll bi dee xaj na ci dajeeg ay saay-saay ñu nangu li nga na ci ñu jàpp la ci frontière nga gàllankooru xaj na ci subaana koo xam ne mën naa dimbale kuy dem ba yii mu mucc ja loolu dana ci baax taxawlu ñooñu ko muy xabiir alax naa ñu ragal minal masiri ci dox doona si saabil xabiir ci lu la xàndaa rek aji ko ndiir farut ñi sàkku ko min kulli qabilatin ci gépp giit wa amal na ñu liggéeyloo fi taxsilihi ci xamalam alfahilatin junay pexe fa awasa jafeñ wijdaanuhu fekkam mooy xamam fil ahyaa ci gàdd yi mooy pénc yi xataa xil naa bañ jortu ne annahu naka xabiir laysa déet min ahyaa mu way dund mu ne bu ko defee ñeneen nañ topp soo kooku bara mi xam ñi liggéeyee loo ñooñu bara bu nekk dem nañ fa mbaa ñu yónnee fa mbaa ñu def pexe ba jokkoog ñoom waaye daal ku mën loolu moom gisuñ bara mi ñu ko daan wute yépp daal dem nañ ci waaye mënuñoo fexe ba gis ko ba liñ foog daal mooy jamono bii ñañ ko xamee woon dañoo faatu te jàngaluñ ko kenn ku ko mën daal mënatu ko loolu la ñuy indi faxaaral dal di gëlëm li awasihi ngir jafeñ a xafiir xafiir mosoo mu sayaarati dogu wéy tukki yi lii nag def ak gëg ak ngërmande ci ñi bëgg a tukki ndax waajaay danay toll foo xam ne bu dem xamul rek lor dana dikk kon àgg nañ ci ñoom mënuñoo toog xamuñ dañoo def ba toog waaye lii tax dem sotti hin nag gannaaw gàllankoor dugg na ci nooy tax ba dem nooy def ba dem doo ko xam moo tukkikat yi dañoo taga témbe xamuñ dañoo def ba dem mais xamuñ dañoo def ba toog loolu moo am faxaara dal di gëlëm li awasihi ngir jëfe ña xasi xafiir osoomu sayaarati dogu way tukki yi dog tukki ndax nañoo def ba dem xawuñ koo xam te toll nañ ci mënatuñoo toog it nag wanta daw ñi péncoo bi baabi jayroon ci bunta jayroon mooy amir di misqa li ci ci ngir diisoo yàlla def ñu ne nañ jataay nañ def jataay yu diisoo e bokk waxtaanu mbir yi daal lu mel nii daal moom yëgoo ci baax comment ça doo dañuy ñu bay na xàq din ci diggante fas waxal leen ak pecci wa sadrin ak raw wa sax leen ak reweñ foofa lay nekk denn sarka nocc denn sarka nocc bu kéne nii la kéne déedéet du nii de ilaa an na fi da ba jeex atanaa ji de yaale ba mel ni wax ji moom kenn amatul looy wax te teeru fenn muy lu fenenk lay waqanaate te naagu arraji aji yaakaar ña foogoon buñ bokkee waxtaan buntu feeñ ñoom gisuñ ne dajee gi waxtaan andi na benn njëy wakaanate nekkoon na xidatahum ca tolloog ñoom saxsun jëmm joo xam ne miitamu hoo mandargaam miitamu subbaan mandargaam ndaw yi la bi ñuy waxtaan nag am na benn waaye bu dend ak ñoom boo xam ne melokaanu gune la xam wala boosuhoo ko dayal la boosu ruhbaan ko dayal yi la yëre yim sol nag mooy yëre yu ruhbaan yi sol ñi nga xam ne nekk ci seen jàmmookaay rek duñu am soxla ci nit ñi ci diinay nasara yëre yooyu la wa bi yadihi te nekk na ci loxoom subhaatul niswaat yi kuris yi jigéen ñi mu ngi amee kuris jigéen ñi daa amee am na cosaan ci sunna waaye ci jigéen la njëkkoon nag loolu moo taxoon subhaatul niswaat yi al al minha fi itixaadi subhaat yi mu ngi bokk ci rasaa'ili suyuuti yi nekk ci alhaawili fataawi dana ca wax dara sayyidatuna Safiya radiyallahu anha zawju nabii mooy wax ne yonent alayhi wa sallam sàbbal yi mu daan joxe lu mel ne subhanallahi walhamdulillahi julli comme ñun jigéen dañoo naqare xel dañ daan am ay saali tàndar daan compte da ko denc da ko defee da ko ca defee da defee bu lay cosaan la da fekk xëy na loolu moo mu jël affaire bi parce que ne jigéen ñi wa fi ay nit yi te nekk na ci tarjumatu naswaan lapputoowu mandika moom de kodday li koddayal koo dëddu àddina la kunu gaan ci loxo bi waaye boo ko ne jàkk nag ba di daal moom dana am lu mu ne ko na ko de laal na ko de laal waxat xayata te mbiroom tënkee na lax dahoo gendeeku bil jamee ci mbooloo bi gaay na liñ daje yëpp de ney mu leen teg bët waaraba te mu jengal mm-hmm. usuna woo noppam wala mu daar mm-hmm. usuna woo noppam li taraxi samay ngir sàcc dégg mm-hmm. li ñu wax léppin nag mu leen a déglu ndeg bëgg ndee li bu ci dara sennee mu dal dafa jàpp falamma ana ba muy ba jotee in fa uhum seen ak wëññeeku gaa ñi bañ waxee ba seen waxukaay jeex te mbir ma teeru fenn xanaa kenn ku nekk jóg dellu fa mu ba waxoon rek moo de ba loolu xamee waxat bëri xaat te mbirum leer na mooy dëñ la foo ñaar ko xafaa um seen ak nëbbu xam na li leen fi taxoon a daje waxat bëri xaat te mbirum leer na la foo ñaar ko xafaa um seen ak nëbbu wax na lëfum ñaar leen daf leen ne e yaa qawm yéen samay bokk li yu préex na yëru kar bu kum wal yamante na wóolu firbukum seen mbooloo su fekkee tukki rek moo leen jaaxal moom jaaxle gi mën naa dëñ parce que ak turukum danaa leen bi maa ci loo xam ne yasroo dana mu huññi rawaxakum seen tiir wayab du te dana mu feeñ rawaxakum te aji toppaleer insha allah li ngeen bëgg te mooy ku leen giide ba ngeen baxee koo fii ci xuuta ba xeera man danaa leen ko defal ci anam goo xam ne dana leen neex te dana dal seen qaala raawi aji solo ji te mooy xaaris ne fastadlaanaa ñi sax koo xam mooy ñu lay min wu ci moom tilaal xibaarati dëgg-dëgg ko ndir waat nay naa te ñu yombalal la hoo ñaal ko aljahalata fay xan istifaarati ci sifaara ñi wan ko no ñi ko kondir gi nu muy demee ak wan ko ko boo nekkee suñ sa biir ci suñ diggante ñi ñuy jokkaloo bañ xàgg sa xol dana seet loolu lañ ko lay kondir gi fasaxa moom mu woote ne annaha naka xifaara gi daal E, kalimaatun ay baat la yoo xam ne luqinaa saxeef na ko ko fil manaami ci nelaw li yax sa ngir nay léemoo bi haa ci moom min kay des anaami ci pexeem nit ñi mu ne waaye li ma leen di condire day dama léem dama leen di léemoo e, lu xam ne dañ ma ko joxoon ci génn dama génn joxu fa jaala dal de xaram baadunaa lenn ñun yow mi du deroogu ila baadin jëm ci lenn ñu commencé xoolante waaye def nañu doy daal doy daal wa yuqallibu muy jàllal mi tarfa yi ñaari gisam bay na nax din ci diggante gendeeku ah waxa den ak gëmmu léeg-léeg ñenn ñi xool ñenn ñi gëmmu ma daal ñu ngi pësinante wàññi daal wa tabayyana daal de bir la woo ñaal ko ne am naa ñun istadam naa doxadal nañ alxabara solom si wastasan naa te ñu yëg alxabara doxadi mu gis ne li mu wax doyuñu ba taam daal yëg nañ découragé alxabara doxadi mooy dellu gannaaw fa qaal mu ne waaw maa ana lan baalukum mooy seen mbir yéen lu leen jot ittaxattum jàpp ngeen jiddi sama dëgg habasan muy fo yéen xamu xamu kuy fo xamu leen kuy fo ak ku ne ci dëgg wajaatum ngeen def tibri sama wurus xabasan muy teggi yéen li ma baaxle ma bëgg leen ngeen bëgg ko soxla wala taalamaa jubtu te yàgg bu ma daggee wallaahi ma xawi falaax taax ak lu waaye wala ju temata bi maqaayim al axtaar bëttuwaay ma bëri yi fa xaniitu ma doyloo bi aa ci kalimaat yooyu xam musaahabati xabirin wala àndaale aji kondiir watti saabi jabirin ak àndaale tunkaar mooy def ay ngànnaay te man yàgg naa dox ci diggante yoo xam ne ñu bëree bëri dañ fa ragal te dara du ma ca fekk te du ma ànd ak du ma ànd ak benn ngànnaay itam ba baat yi lay léemu su ma topp man saan fi xet dinaa dàq maa li nga xam ne raabakum sikkuloo na leen waata sillu te danaa bocc mooy danaa dindi alaasar ragal alladi gi nga xam naabakum jot leen bi ak waafiqakum ci bu ma dëppoo ak yéen fil badawati ci dox ci àll bi wa raafiqakum ak ma ànd ak yéen fi samawati ci samaawa léegi fu man ma dalaa seen xet sax damay ànd ci tournée fu ngeen toll mu ne maag yéen fa in sadaqakum bu leen dëggalee wax di sama dëhër su fekkee dem ngeen baal ngeen xam li ma leen wax nii dëgg la faa ji doon na ngeen dëggal di sama texe ah kon lu war ci loolu na ko toggoo ndax dina dimbalante moo ci nekk waat na doote na ngeen texeel jëndi sama mbuur wayin kasabakum bu leen fenalee nag fa mi sama gémmiñ ba ma bi xool na ngeen xotti mhm. adami sama der mhm. waaye xool te ngeen tuur mhm. dami sama der leen dana leen ngeen rey ma jàll xelon ku baax a baax kon ñi jàng lool insha allah ba beneen yoon xëy na ah, xëy na gars yi danañ na <laughs> ñu xaalal xaaris ibnu hammaam xaaris nee na fa ulhim naa yenka baleet ñu tasdiqa ruyahu dëggal géntam bi mu waxee lii nag yàlla mi def nangu ci xol hmm. ah def ñu gëm waxam rek wa taqiqa ma ak dëggal li nga xam ne rawaahu sole na hmm. li mu waxee ñi nangu fa nasaanaa ñu génn hmm. xam mu jaadalati ci daggi anteeg moom xam naa coow moom ci lañ newoon loolu moom dañ ko tëral wastaham naa ñi wantale ala muadalatihi ci ànd moom ñi fa dogu ci ànd moom waaw wastaam na ñi wanta ñi wantale ala muadala ala muadalatihi ci ànd ak moom wa fasam naa ñu daggee bi xawlihi ci waxam xolal bi mu waxee lii nag bañ gëm ko ñi far ñun ñëpp daal fi ne def la dem rek moo def yu bëri ñu bañ ko def muy wa alxaynaa ñu sànni iftiqaar haabisi teet ak aji fo wal haisi ak aji yàq booba lañ sànni ragal fële koo xam ne léeg-léeg mën naa tardé nit iftiqaar haabisi teet ak aji fo wal haisi ak aji yàq wala maa hokkiman ba takkeesee arrihaalu laxas yi tegi waasi fa te jot asarhaalu laxas ba nga xamee takk nañ bagaas yi xam ne jóg moom jege si na istansal naa sàkku nañoo wàcce kalimaati yi baatam yi arraqiyata yede way mocci li nañ xalaha ngir nañu ko def alwa alwaqiyata mu daa ji musle albaqiyata daa ji def dañ ne ko li ñoo li ñoo léemu dañoo bëggoon nga jàngal ñu soo ñu ko jàngalee bañ man ko hmm. suñ jëriñu ji du tey xam ne boo ñu moo dana doy sax hmm. ah, waaye ëllëg ñi man di ko jëriñoo fu ñu mën a nek lañu hmm. gën a loolu lañ ko ñaan mais na ko moo gën ci yow ki may jën mais jàngal na ko moom boo mënee ndax bu nattuwul rek nga am jën waaye ki la may bu nattuwul rek nga am jën alors loolu lañ ko fa qaala mu ne wax ni ñu jàngee ñaan gi mu ne li yaqra na jàng kullun képp minkum ci yéen ummal qur'ani fatiha suñu ko def kenn ku nekk day jàng fatiha bu sell kullama adalla bépp bu jotee almalawa di suba ngoon bu xëyee léemu la ba ngoon bu ngoonee léemu la ba bëgg su ko defee nag boo koy léemoo hmm. da ngay fatiha ba mu àgg su ma yëqul topp wax bi lisaanin ci lammiñ hmm. xaadiin bu daa ji toroxlu ak baat xaasiin bu daa ji mu waxee ci toroxlu hmm. ne allahumma ya muhiya rufaati ba ñaan mu ne allahumma ay yow yaa muhyi yar rufaati yow mii dekkal yax yi funa yax yi dee ba nekk suuf yow mi leen di dekkal wa yaa daafi an aafaati yow aji jañ gàkk yi yow mi nga xam ne lépp lu yàq rek mën nga koo sori wa yaa waqiyal maxaafaati yow aji peg yi ñooy ragal yow mi nga xam ne lépp lu ñu de ragal rek mën nga koy fegal wayaa kariman mukaafaat yow aji tedd ci fay njëkk hmm. yow mi nga xam ne ku def lu baax rek da ko fay ba ëppale ko hmm. wayaa hmm. moom ilal mafaat yi yow mi wéeru waayu wéy xaar yi yow mi nga xam ne lu wa bëgg rek yow la ca yaakaar wayaa moom ilal mafaat yi yow mi wéeru waayu wéy xaar yi xaarkat yëpp ci yow lañ wéeru mooy lu waaye la ca yaakaar la wayaa wëli yan xaf yow mi de aji may ngoon jéggal mhm. yow mi de far bàkkaar alambu mooy far bàkkaar wal muhaafaate ak jàmm mhm. yow mi mayee jàmm mhm. ay taggala yu mel na la ci borom bi tabaraka wa taala te loolu dafa bokk ci adabu doa salli yàlla nga def salaatu ala muhammadin ci muhammad so itam yoo am la bala nga wax su soxla yàlla nga salaatu ci muhammad xaatimi ambiyaayika hmm. kadaaji mottali sayid ambiyaa hmm. ki nga xam ne gannaawam hmm. benn nabi yu dootu amati wa mu ballixi ambaayika kadaaji jotal say solo xibaar yi baxoo ci yow bindee bi war koo xam sa law jotal na ko ñëpp qul huwa nabaun azim antum anhu muridun waala masaabihi usratihi hmm. ak lamp yaay ñoom njabootam lañ hmm. salaatu boobu yàlla nañ ko àggal ci ñoñam hmm. ñi nga xam ne ñooy sangi bi ndéebi fuñ mën a nekk comme ay lamp lañ wa mafaatihi nusratihi ak caabi ndimbalam ak sahabaam yi nga xam ne dimbale gi ko yàlla dimbale ci ñoom la ko wanee dafa mel ni ñooy caabi yi hubbi wa ahid nii yàlla nag ma musal min nasaxati sayatini ci yàqi saytaane yi nasxu mooy de cuut dara war dara da ko cuut subaa du mën a dal dafa ni doog ni saytaane dafay xere nit ñi loolu nag li ñu te alquran wax mooy dañ koo muslu wa imma yansaxannaka min asaytaani nashum yonente bi nag ku ne xam na ne loolu mucc na di donte ci moom lañ jubale xitaab bi itam jullit ñi ñoom la ñëwoon fu ñoo jaar ba jëriñu loolu moo tudd tahriir ci bayaan jël wax jubale koo xam ne taxul ñuy wax keneen a tax ñuy wax waaye nii yàlla nag ma musal min nasaxaati sayatiin ci yàqi saytaane yi wa nasawaati salatiin ak tëbëg buur yi jëfandikoo doole buur ci sama kaw wa inaatil baaxiina ak sonnaleeg tooñkat yi wa muhanati saaxiina ak jànkuwanteeg way beew yi wa muhadatin haadiina ak noonoog way bañ yi yëpp yàlla mën ci musal wa udwaanil muhaadiina ak mbañeel ak way noono yi yëpp man la musal mu ci wa xalabil xaalibiina ak noteel ak way not yi ñi doole dëbët ni ci lu jaaduwul man la ñaan nga musal ma ci ñoom wasala bi saalibiina mm-hmm. ak rékki way rékki yi mm-hmm. ñiy fekk nit am loo xam ne moom la baaxle mm-hmm. ñu jël ko dem moom yàlla na mën ci musal waxiya lil muxtaaliina ak pexey way fexe yi ñi de fexe fexe yoo xam ne bu sottee rek ku loru maa ngi lay ñaan nga musal ma seen intérêt bopp rek waxiya lil muxtaaliina ak yongaani way yongaani wa ajir nii yal nag ma xettali allahumma yow buur min jawril mujawirina ci jeng ak way dëkkaale yi jeng ak dëkkandoor yi wa mujawaratil jairina ak dëkk ñu jeng yi ay dëkkandoor yi tooñ ka maa ngi lay ñaan nga musal ma ci seeni tooñ maa ngi lay ñaan itam nga dema tànnal ay dëkkandoor may dëkk ñu baax Hmm. Hmm. Hmm. wa kuppa yal na nga fekk xam ni ci man ak kuppa daimiin teen xi way tooñ yi te itam tooñkat yi yal na nga dox sa yal na ma fekk seeni loxo mooy yal na nga dox sama diggante ak ñoom buñ mën a àgg ci man waax riñ nii yal na ma génne min zulumaati zalimiin ci lëndëmi way tooñ yi waa dëxil nii yal na ma tabal bi rahmi bi rahmatika ci sa yërmande fi ibadika ci sa jaam ñi assalihina ñu de way yiw ma boole ci say tànneer allahumma yow buur xut nii yàlla ma wattu fii turbati ci sama suuf wa xurbati ak sama tumaranke fu ma mën a nekk yàlla naa sa wattu rek wa xaybati ak sama faddu wa aw bati ak sama wëññeeku fu mën a nekk wanuñ xaat yi ak sama forluwaay mooy sama génn de wuti dara warañ xaat yi ak sama dëpp wa tasarruf yi ak sama soppatu mooy sama yëngatu ci dara ba mu saraf yi ak wa taqallub yi ak sama jàllarbeku wa munqalab ak saxuwaay sama samay xarakaat samay sakkanaat yëpp maa ngi lay ñaan yàlla nag ku ma cay wat boo fas nii yàlla nag ma wattu fii ci sama bakkan sama deret lépp yàlla nag moo ko wattul buñ ma rey buñ ma gaañ buñ ma jàpp wa nafa isi ak samay wëluur mooy sama halal sama njaboot sama sama sama diina wañaar bi ak sama der maa ngi lay ñaan nga wattul ma ko waxaarati yi ak sama poñat mooy sama halal hmm. waxaarati yi ak sama lim mooy sama ñoñ hmm. waxaarati yi ak lima xadu hmm. wasakani ak sama ñoñ mooy sama jabar wa maskani ak sama dëkkuwaay yow yàlla ma ci wattu waxawli ak sama waxaali ak sama mbir yépp maa la lay ñaan nga wattu ma ci wamaali ak sama halal hmm. wama ali ak sama delluwaay yëpp maa ngi lay nga wattu ma wala tuhiq yàlla bal héegal biye ci man hmm. tax yiran soppi hmm. ni ma ménalee xel mu dal ménalee ma ko jàmm yàlla bu ko soppi di andi leneen wala tusallit yàlla bal xiir alayee ci man muriran aji lokki ku may song da jël la ma fekkee ci dooleem kooku yàlla bu ko may benn sulta ci man bu ko xiir ci man wañaal yàlla nga defal lii a ma min la dun ka fi yow sultaanan lay nasiran wu daa ji dimbale maa ngi lay ñaan heure bu nekke rek nga dem a indi lu may dëgëral loo xam ne daf may dimbale sultaan mooy hujja xam nga day dëgëral borom sultaanan lay nasiran wu daa ji mooy heure bu ne rek nga dema dëgëral may euh, may dëgëral ci urus nii yàlla nag ma wattoo bi aynika ci sa mooy sa wattu rek ndax ñun liñ xam muy bët jomb na ci yàlla waaw ni ka ak sa ndimbal waxtu nii yàlla nag ma jagalee bi am ni ci sa góolu mooy sa musle wa man ni ka ak sa xéewal wata walla nii yal nag ma méngooyee bi ixtiyaarika ci sa tànn wa xayrika ak sa yal nag ma xamee ci sa mbaax ak bopp wala tëkkil nii yàlla bul ma wakkiir ilaa kilaa ati xayri ci wattu ku dul yow bu ma baxee keneen waab yal na nga may lii ñu xaal ma xaafiyatan jàmm xayra xaafiyatin ju aji farat maa la ñaan nga may ma jàmm ju dul farak aafiyatan jàmm xeera aafiyatin ju duumu aji far warzuq ni yal nag ma wartagal rafahiyatan noflaay xeera waahiyatin bu duumu aji doxaat yi wakfi ni yal nag ma fegal maxasiya la waa yu ñu ragali tiit yi wagnub ni te yal nag ma sàngee bi xawasil aala ci ay muraay xew yëpp maa ngi ñaan nga defal ma ko mm-hmm. wala tu féete bul tuubuloo mm-hmm. biyee ci man azfaral aada wehi noon yi mm-hmm. noon bu leen may doole ci man in naka naka yow yàlla samion suha aji nangu ñaan nga su ko defee lii mooy ñaan gi lii la jàng su ma atraqa topp mu sanaagal mu dal di sëgg dafa bokk ci teggi yi ni siigar soo ca paree nga dalal bala ngay jógee foog nga siiga rek nga dal ab diit nga doo bokk ci tegg yi ni siiga ah gannaaw mën nga ko mu sëgg ab diit xëy na loolu lay jàngale aale laa yu diiru du mu wëndee lax dan gendeeku mu ne geesu wut kenn nag du mu jàngee ñaan gi ba pare xoolul kenn wala yu xiiru den muy delloo itam lax dan benn kàddu waxul dara itam dal na daal ab diit daal te lool ci adabu sirri nag ci la bokk xataa qul naa bañ wax ne xat am noppi loo na ko xaseetan ragal ba ñun ñu ah, ba dafa bi ñu waaw xat am noppi loo na ko xaseetun ragal aw ala sadu wala boog da koo luuloo xaseetun muru xel dana taras daal ab diir bañ foog ne dafa dese ñemee li wax walla boog dafa daanu boog tàggoog sabab te léeg-léeg waarit ilahi yi danay dikkalee nit foofu sigal ba pare dal léeg xam na sama borom wan ci mbaaxam mu ne su ma xanaa topp mu yëkkati rasoo boppam mu yëkkati boppam mën naa am fii la ko yàlla wanee li muy wax wasanaada mu héegal an fasahoo ay nokkim mu nokkat ca waqaal mu ne uqsimu maa ngi giñ bis ci borom hasamaan saatil afraaji hasamaan say boromi burju burju ni mel hasamaan mu ngi mel ni ni mbedd mel ci suuf wal ardi ak borom suuf si saatil fijaaji bay boromi yoon wal maayi ak ndox ay say borom ndox asa jaaj may yola koon wa siraaj tey borom lampu alwahaaj bay tàkkakoon wal bahri tey borom géej alhajjaaj gay ko cowaakoon wal hawaa'i tey borom ngelaw li wal hajjaaj ak pënd bi dégg nga wal hawaa'i tey borom jaww ji wal hajjaaj ak pënd bi maa ngi inna kalima bi la min aymanin obadi ñu ngi bokk ci gën jaay barke muslu way waaye bu barke la wa ax naa te moo dàqaa jañ lor xan kum ci yéen min labisil xuwasi ci way xoddo yi mu bu koŋ lim mën a fegal soldat bu armewu mënu man dara sax ku leen jàng inda ibtisaabil falaqi fa muñ ak ku xëy jàng leen comme ni ma la waxee lam yusuf du mu ragal mm-hmm. min xat bin menn bëmbëre mooy mbir mu diir ila mm-hmm. soxote ba sama mm-hmm. dañ ko gàllankoor ba ngoon waman naajaa ku diyaale bihaa ci kalimaat yi te liaatal xasaqi ci njëlbeenal ngoon ku leen jàng ci njëlbeenal ngoon amina mu qaala xaaris ne na fatalaqannaaha ñi saxu baat yi hatta atqannaaha ba ñu xereñe ko mu ne mu ne ñu ko sax bañ mokkal ko wa tadaarasnaaha ñu jàngalante ko li kay lan laa nansaha ngir bu leen ñii ko fàtte su ma sir naa topp ñu dox nus ji mbirom danañ màng alxamu laati gëlëm yi bi daawaati ci ñaan laa bil hudaati waaye du ci ay wëy wa nax mi ñuy xaare alxumulaati sëfi bil kalimaati ci baadi laa bil kumaati waaye du ci jàmbaar yi kon ñu jàng lool ba beneen yoon insha allah ñu mottali maqaama bi mu ñuy jàng kii mu ne ni de dem ah ngoon bu jot it mu ñëw na ngeen yéen yéen a ngi ci jàmm. parce que ñu lee mu dem. waxut ne bëgg na dara nag. hatta ida ayan naa ba ñuy jànkaar ba ñuy jàkkaarlooyee. hatta laala haana ta génti haana. dëkk la bu bëri gàncax. te lu ko baax a baax. bañ ba jàkkaarloo gént qaala wax na lanaa ñeexal ñu def ñu ne al ihanata al al ihanata dimbale leen ma al ihanata dimbale bañ demee daal ba jub geen dëkk boobu ci la bëgg na dara comme nag la waxoon ak ñun matal na ko laju dara dikk na ba fi mu war a lajee mu laaj ñu itam ay gor la ñoo doon comme moom rek mu ne fa ahdarnaahu ñi teewalal ko almaaluuma la ñu xam wal maktuuma ak la ñu nëbbu wa araynaahu ñi wan ko almakuuma la ñu takk wal maktuuma ak la ñu mu ne bi mu waxee nag kon ngeen dimbale lépp lu ñu xam dañ ko ko na ko mu ngi nii li woon ci poos yi kenn gisu ko woon lañ kaste woon ci enveloppe bi kenn gisu ko woon mooy xaalis yi ak li ci gannaaw yi gëlee mi di ay wólu luñ sarfe dañ ko daal lañ am mu ngi nii waaw loo ci def neex nañ waaw dem liñ xamal ngi nii loo ci bëgg jël ko ci neex nañ waaw dar naawu almaaluma la ñu xam mooy lu feeñ wal maktuuma ak la nëbbu wal maxtuuma ak lu ñu takk mooy liy sarfe ci gannaawi gëléem yi takk ko ak la ñu kaste waqul naa ñu wax la ñaal ko ñu ne ko iqdi hatteel maa li nga xam ne anta yow qaadin aji nam nga koo hatte ba maa te ñu den ngay fekk fii naa ci ñun xeer radin ko duuma yi gërëm ñu ne ko teeral li ñu nii loo ci def neex nañu loolu lañ ko wax commencé di gën ngay fekk fii naa ci ñun xëy na ñu ko duma di ma taxaw ko xoyofalu ko si wal xis bi loo mooy aji xoyof ji wa zeyni ak aji rafet ji wala xal ya rafetu bi aynihi ci bëtam xeyrul xali xali lu mooy takkaay ayni ak kaay waaye mu mel ni daal luñ ko lu mu bëri bëri daal lu ci dul xaalis moom xoolu ko xamul ñu soxla waaye xaalis bi nag bu ñu xaalis bi nag moom jël na ci ba am te lu mu jàpp waaye kenn xeeb nag yenn alal yi moom donte loolu nañ ko mën ngi jël loo soxla moom gesuwu ko sax mu soxla yooyu ko daal ba ma taxaw ko xoyo xoru ko si wal xippi ndare aji xoyoor ji rek wasay ne alaaji rafet ji te mooy xaalis beeg wurus bi wala xal ya rafetut bi ay ni yi ci bëtam xeyrul xal yi lu mooy takkaay li rek wala ay ni ak kaay bi xaalis beeg wurus bi daal jën bu baax a baax lu daal la jël rek san bu baax a baax fatamala mu henu min huma ci takkayle kaxe gi wiqarahoo kem xenam xenam guddi mu ne jël na jëlaat lu lu ko mat xen ci xaalis bi buurul bi war naa am mu buur bi ma ak lu xam ne ya suddu dana mu mëdd faqarahoo ñàkkam lam ci jël daal moom xam naa ne war na caa dëgg am lu mu jàpp summa xaala sanaa topp mu fiw ñu muxaalatata tarraar kem fi bëgg tafukat boobu ne la ne melete mel ni ku bëgg a tafu nit rek su demee ba jëlal ko la koy jëlal na moo defee melete boolu ne melet wansalata mu min naa ci nun insilaatal farraar rek cëg dawaa ko mu ni yereg daal mel ni koo xam ne bëggatul ñu gis ko bëggatul ñu xam ne moom dara faaw xasana wéetal ñu firaqoo tàggaloo moom su ko defee tàggaloo giñ tàggaloo moom xëyatuñ gis ko gontatuñ gis ko te ñu daan ko gis suba gu ak ngoon gu jot tax ñu yëg ne wéet nañ waar gëlëm loo ñu mooy jommal ñu imtiraqoo génnam ak ñun ñu tëqee woon diiru yoon fu ñu nekk rek mu xam ko mm. ni man ak buuree ne yarek man ñu ko dégg fenn mm. loolu daal gén nañu jàmm gërëm loo nañu jommal nañu waaraatanaa gërëm looñu imtiraqoo génnam mm. walam nasal dañu ñu nan suduhoo de ko sàkku bi kulli naa din ci mépp pénc ñii ko laajte ci garan place bu ne fu ñu dem laajte ko wala sax biru ñuy sàkku solo muy ñaar ñuy sàkkoo xamlu anu ci moom kulla muxwin bépp aji réeral waadin ak bépp aji gindi sàlla sàkku gi ñu sàkku ne mele ñu di ko tax na laaj bi teggeetuñ ci woon kenn kuñ naan jarut laj du leeral ak kuñ naan day leeral bu ca xamee dara kuñ dajee dañ ko laaj tuuti defoo ko laaj ilaa an qiila ba waxees ne inna woon naka suñu waaji daan mu daxala waxtu wam tàbbi aana ta aana maasa yàlla tàggalawul alxaana te bistaron ba ñu ne yéen daal góor ngeen a wut bu ngeen ko seetee baar ba da ngeen ko gis da ngeen duggee ci dëkk bi ba léegi foofu dara loolu la ñuy wax de baax ba da ngeen ko jënd da ngeen di gëj dëkk wala ba léegi foofu la nekk ilaan qiila ba waxee ne innahu naka góor gi mustaxala waxtu ba mu tàbbee xaana ta xaana masa yàlla tàggalawut alxaana ta bistoro yi faaxaraan yi dal dema xiir xubsuha xubsu haadal qawli ñaaw jile wax bisab kii ci nat toggam mu ne wax ji naqadi ma lool ma ne lii lu ma bëri nii sëñ bi koy wax yi xam nga pour ñëw sëñ bi laa liggéey moom danaa ko topp kii ko fent danaa ko topp ak moom la ah seetlu bu lii du lu may bari ah il faut que ñu tuma ah ko bari moom daa ko topp kii ba xam ki ma topp ko moom waaye est-ce la loolu lay yëg waaye bu koy seeti bu ko fekkut ci mbaar bi mu xam ne tuuma la mu doog a lijjanti ko bu ko fekkee nag te dina gi wax ji moom naqari na ko lool ndax fi mu teg góor gi waaye a dem naa xam góor gi yéen nag doomu ne du topp ba xam ndax moom laa du ko faaxaani xiir ma xubsu haadal xawli bon ak jile bi sab kii ci toggam ci nattum wali silaaka ak natu fii maa ci loo xam ne laf min sil ma bokk ci buumam maa dugg ci loo xam ne mérite faar lay tu marañaan ya daftar fi jëm ci biir salon ba dama toog ba ma toog ba lëndëm dem baax ma ñaan ma yàlla bëccëg ma yaw ci yoonu baax ba nit ñi di janam man may ba dugg ñu janam man ma ñaan ma ko yàlla ndax la may jëm dama yàq ci samay mbir waaye delluma ko xadaata bu guddi fi ay atin ci melo munakkaratin wala wuñu fakkal te itam doole wu ma lëm gi damaa fexe ba dem noo xam ne su ma dajee ku ma xamit mu mën a xam ne waaw soppi colom la soppi xam ne kenn mu mën a xam man laa toog ba mu ma dem jabaar maa demee fexe naa demee melokaan wu xam ne kenn du ma xam ne waaye ca xoolin wax ca waxin wax ca defin wax fa idaa ci mbetteel aseebu góor gi fi wulatin mu ngi ci ay fondaay mu masaratin yu xonq cër ma dem fekk góor gaa ngi sol yére yu rafet yére yu nokkat yére yu xonq cër ci bistarool bay na di naanin ci diggante damsaan comme yaa saratin ak nalu kay safa ak sàngara comme yaa saratin ak nalu kay sàngara damsaan ba yàgg waaw mu ngi sol yére naankat damsaan yaa ko wër waxaw la woo nekk na ci kéw gaam ci peggam suqaatun way sarwi kaas te faru ñooñ dana ñu xeli ci kaas yu rafet rafet ñoo ko war di ko sarwikaar fayda yëg fayda fayda jëmmet ak seefu góor gi fi hullatin mu ngi ci koddaay mu maqaratin yu xonq cëp bay na dinaanin ci diggante damsaan wa maqaratin ak nalukaay sàngal waxaw la woo mm. mm. mm. te nekk na ci kër bay góor gi su xaas mu wéy sarwikaar te loolu ñun danañu noppali ci taam suma woon ak i sondeel tasar yooyu danañu leer nañ ñu ngi taa sondeel lu leer nañ la wa ak aas xeetu fulóor la bu ñëwee fóon bu neex xëy ak am xar yëpp ay xeetu fulóor la wa mismaarun ak mismaar salimba fowukaay la wa misarun ak misar wala tam xeetu fowukaay la ma dem rek góor gi mu nga toog ca baar ba damsaan ci pegg damsaan yi ay farwikati kaas yu rafet a nekk ci peggam hmm. boor ay couleur ci nekk hmm. boor ay salimu yu ñuy wal hmm. ak ay tëggukaay yu tëgg moom daal nam gën a kubbee nam gën a neexee nam a bakkane daal gën a ko woo moom góor gi taaratan ci ak jamono yaxtasilu dana mu yëkkatilu ak dinaana damsaan yi léeg-léeg mu ne jox ma kàr sàngam dinaa sàngam sama kàr dinaa sàngam ci beneen jamono ay yastantiqu dana mu tuddloo alhada alhada na sëri mbay ah léeg-léeg mu wax waa ji ne ko buum sàngam wala walal ma façon sàngam wa damataan ci beneen jañeen yastantiqu dana mu soroxle ko arrey xaana gàtt ah léeg-léeg mu jël couleur boon waxuraat ci beneen jamono yu xaasilul mu ngay këcc la des ak lislaam jox nga may léegi mu jege jigéen ñi wax o yu sew ila la hasartu ba ma yégee ala lafsi yi ci jaxaseer ba ma demee ba xam ne ndeke kii du ku ñuy dara lépp luñ ko wax moo ko def waaw falamma hasartu ma fakkataloo mooy ba ma yégee ala lafti ci jaxaseem wa tafawuti yawmi ak wuuteeg tayam min am si ci démb daga seet rakk-rakki kur jim ne woon démb rek tey mu ne jili xultu ma wax la woon ñaal ko ma ne ko aw laa la ko boobu yow yaa manoon yow ku jëram yaa xalat boobu ma lay a aussi te fàtte loos fàtte loos na la yow ma jëyroo nag keroog jëyroo ba nga gëmee course ga noonu ci mel ni ñaankat bu mag a mel ni taay bu mag a mag yow nii la tey xaa fàtte gëm de xam nga sax day ñàkkal jom nit est ce que lii dana ko tax a rus du ko day yàq jom mu ne fa day ka mu ree mu di aji jéggi dayoo jareeja mu ree ba ba xiir ak sa da topp ma sa da musriban daa ñu déglu te mu wéyal wéy yi daa ma man lii laa man loxo rek loxo rek boobu beneen yoon insha allah mu ne ko ah yow nii la tayam ba nga téyee tur ke dara karaaki ci bunt bi jëy loon ay xam di am jom mu ne dafa ree ca kaw daldi wéy nag wéyi ne lazimtu sifaar wajibtul wajibtul xifaar wayeftu nifaar li ajnil fara wa xuttu suyool wa ruttul xuyool li jarri suyooli sibaawal mara ba mu àgg mu ne lazimtu tëqoonaa ak sifaara tukki wa jubtu tema dagg alxifaara xàll yu wéeli wayeftu tema tib annifaara ko ñu mooy sori leen li aj liye ngir naa kotte alfaraha mbégte xanaa xamul ne lii la lu lu ma bégee moo taxoon may yendu xàll ak yéen te fanaan xàll ak yéen nag bu ma leen mën a ngeen doon doon dig seen soxla may suma soxla doon doon ñu hmm. tukki wajubtu dagg naa alxibaara hàll yu weedi waxeetu sim naa annifaara foñu mooy sori leen laaj ne ngir naa kotte alfaraha mbégte waxuttu tag xuus naa tàggat naa alxuyuula fas li jërri du siba ngir diri ndaw wal marahi ak mbégte loo mel nii laa bëgg a def rek waaw ni yu may dugg loo mel nii laa bëgg a def rek moom tax de xuus ndox moo fas yi fas yi waaw waruttu tàggal naa alxu yoola fas yi li jëri su yoole siba ngir diri la fi di ndaw wal mara ak mbégte xuttu may xuus naa wa mittu dañoon naa alwaqaara legu gisoo fi mu ne ñëpp ma fe ñëpp ma ñëpp ma yem rek mën naa mën naa su ji ma wa biatu jaay naa alxaqaara fàkk li xas bi noo xaar ngir góob sànga lépp lu ma am naa ko ci sànga wala suel xada ak ñeeri gaas ak ci gaas xanaa xamu ne li yow ma tere gis lu ma am rek def naa ko wa mitu dajal naa wa bi waxtu te may jaay alxaqaara pàkk li hasbil oqaar ngir góob sàngara wala suil qadar ak ñeeri kopp walaw la timaax bu duloon yëkkate ku gis ila sur bi raahin jëm ci naan sàngara lama kaana konoon du nekk baaxa de tudd fa mi sama gémmiñ bil mu lay jaay wax yu xorom li may nekk di wax ay wax yu xoromu bëgg man de jëlee ci nit ñi dara naa am lu ma naanee sàngara rek ah waaye su dul woon lim si sàngara xam na loolu xam na ko jaral ndax li ma am ci la boole walaw la téemaa bu dul woon yëkkateeku gis ila suur bi raax jëm ci kaana konoon du du nekk baaxa de tudd fa mii sama gémmiñ bil mu lay jaay wax yu wala kaana ni konoon du saaqa di mang daha i sama jommale arrifaaqa setti si li ardin Iraq jëm ci suufa Iraq bi xamli suba yi yori kurus ne kon ngëb kurus jiital ba xaw ñoom dimis xa jëm Iraq su bëgg sàngara du ma ko doon def yéen da ngeen doon dox seen soxla mais sama soxla doon wala kaana ni ko noon du nekk di màng daa i sama jommale arrifaqa sette si li ardine raaf jëm ci suufa seen bi xam li suuba yi ci yor ci yor ci yor kurus mu ah, moo jarul bëgg ci lay mu ne fala tax da ban bal mer nag jarul ngay mer wala tax xaban bal coowit coow li it jaru ko nag wala tansiban bal yeddee affaire yedda nga ñaxtu it jaru fond yi sama ngant wataxal leer li ma la wax leer na de li la soxla woon mu dul xam naa man ci fay soxla te leer na de wala tansiban bal yéemu li seexin ngir ak abal na góog sax na mu bi max nan ci wàccuwaay axan na gudaaji naat wa dannin ak dam saan tam xaa na mu pour yow li mooy am mag laa bu xamee dama mën a ñàkk caaxaan nga fekk ma ci bu bëri fure fure ma nekk ci diggante dam saan yi fees yàlla bal wax lii na mu lii na muy xamee jarul muy la yëg wala tax jiban bët yi mu jarul ngay yéemu de waaw li seexin gi rek góor mm-hmm. aban na gu sax na mu mm-hmm. góor gu sax mm-hmm. bi max nañ ci wàccuwaay axan na budaaji naat wadanin ak damsaan tafaa boobu fees na mu fa innal mudaama fa qul fihima ismun kabir wa manaafiu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafihima mu ne bàkkaar a ngi njëriñam ji waaye bàkkaar këpp njëriñ li nag moom na xam jomb su bëgg wane njëriñ danaar da wane sikkare mu ne fa innal mu daama sàngara toqam yi dafay dëgëral al insaam ay yax bu naan sàngara ay yaxam day dëgër wata suy day saafara asiqaama ay xob xam ne wéradi xel yoo xam ne wéradi xol yoo xam ne naqar yoo xam ne moo ko mën a faj am na wéradi yoo xam ne moo ko mën a faj watan fii dana mu daq a taraxa njàqare am na jaaxle yoo xam ne bu la dikkëree soo jàppante moom rek léegi nga tàggaloo moom safrahu la tanzilul axsaanu saahataha law massaha hajarun masalu sarraahu naan googu nga gis foofu lu wàcc rek njàqare njeexaale yoo fekk mu faa dede dégg nga fa innal mudaama naka sàngara tuqawwi dana mu dëgëral al-idaama ay yax wa tasfiida dana mu saafara si qaama hokku wa tanfiida dana mu dàq asaraha njàqare wa asfa sellal na mu asroora mbégte idaamal waqoor boo xamee ne koo wegu amaata dañeel na mu sutura xayaa kiday kersa wa taraha te mu sànni leen mu ne soo ko naanee guru sutoo dara na bëgg amee mbir dara danga ko mën a amee de awaas fa sellal na bu asroor a mbégte idamal waqoor boo xamee ne ku amaata dañeel na bu sutura xayaa kiiday kersa wa taraxa te mu sànni ko xam naa na bañ a tee mën na bañ a wa ahlaa neexal na mu moom sàngara alxaraama lakkatu xol idal mustahab boo xamee ne ku ñu soppaloo asaala dañal na mu iktidaamal hawa na bug cofel wabtadaha te mu gàccewu mu ni boo ko naanee bala doon sag sagatoo ko souvent tatak cofel gu mën noo ci bëgg a bànneexoo dañ ca mën a bànneexoo waala neexal na mu alxaraama lakkatu xol day neexal tatak cofel ilal mustaham boo xamee ne ku ñu soppaloo hmm. asala dañal na mu iktitaamal hawa na bug cofel hmm. na bug bànnee wax tadaxate mu gàccewu hmm. fa buu bi hawaat wa barrik asaat hasaat fa sandu asaat bihi qad qad qada wa daawir kulum wa sallil humum bi bintil kurumi allati tuqtara wa gussal gabook bi saaqin yasuuq balaa al masuux ci sama sama wa saadin bi sawtin termiyik ibalul adilla wa in sarax kon ñu jàng loolu day mu ne fa boo na nga bi hawaa ka ci sa sopp sanga nangul ne bëgg ko di ko wa bari te na seddal xasaaka sa balja soo yëgee tàngooru bil xol ndax naqat wala jaaxle bu ci jëfandikoo loola moom dana dal hmm. façon du asa ko doju béyi sa njàqare xat-xataxa hmm. koccoona bii ci moom hmm. wadaawi nang ci garbale na ngay garbale alkulooma jam-jam yi wasalli na ngay niisulooye alhumooma njàqare yi bi bintil kuróom ci doomi sing allati bintul kuróom mi nga xam ne tuxtarahu dem na ko fàggu lu mën a faj ay jam jam la hmm. lu mën a fàttaloo nit jaaxleem la hmm. waxus waxus sa nanga jagaleel alxabuuqa naan ak ngoon hmm. bi saaqin caaji sarwi kaas ya sooku kub dana mu màng balaa almusuuqi balaa kuy soppaloo isa ma tamaxa bu yëkkatee gisa mu ne buy ngoon nag ba nga ca baar ba danga wut ku rafet Mm. pour la sarwi kaas mm. koo xam ne bu la jubee rek mm. da ngay dal di jagale alxa boo ka naanal ngoon bisa kin caaji sarwi kaas ye soo ku foog dana mu màng balaa almasuux balaa ku ñu soppaloo isama tamaxa bu yëkkatee gisam nga xamin nag ku lay wéyal ku xam ne day ku neex ba te xiirle ko xam ne bu yóoxoo baat bi day riit mel na ay bindi feer ñoo ciy ceer ci biir ma ne awut ku mel ne moo tax ne wasaadin ak aji jooru mooy kuy wëy yu siidu kook dana yëkkati bi sawtin ci baax tamiidu boobu dana jaayu xibaalul hadiidi buumi weñ gu ñuul mooy fil de fer la ko ñaar ku insa insadaha bu jooroo bu yóoxoo nga wut ku lay wëyal ko ku xiir ba te neexle ko ku xam ne bu yóoxoo ba te bu ceeree da ngaa foog ne ay bind feer ñoo ne ci biir di laalante ak aji jooru yu siidu ko gën a mu yëkkati xibaalal xadiidi bu mi weñ gu ñuul bi sawtin ci baat tamiidu boobu gën a jaayu xibaalul xadiidi bu mi weñ la weñaal ko in bu jooro alladi joo xam ne layu biiru du mu daganal misaala bi ma ne jokkoo jongama yu rafet aji rafet isa ma samaha bu sabee ko la jéema digal naan ñi baaxu ñoo jege dafa déglu de ko la jéema digal naan ñi si bari yi baaxu ñoo jege ki gannaaw jëmam neex na la nangu na la jege ko la jéema digal naan baaxu na jege ma jarul déglu waxaa si na ngay mooy am na fi lay biir àll bi haaji lay biir joo xam ne layu du mu daganal wisaalal ma ma lii jokk aji rafet isama sama habutabe wajul na ngay wëndeelu filme haali ci pexe bu nekk reel de pexe man di am ci nit ñi dara walaw bil mu haal donte ci wëlut na nga wala walaw bil muhaal wala ki da walus bil muhaal walaw bil muhaal doonte ci jomb nga koy defee doonte fen waxeen waa de maane sax lay doon waaye daal na nga fexe dini dara waxtaan te nga bàyyi maa li nga xam ne yuqaal des na lu wax waxi nga jàpp maa la nga xam ne salaayi wér na danga fi lu la arrangé rek nga nekk wa faariqa abaka sa baay isa ma abaka su la bañee su ko dee melo bii nag ku la ci mën dëngam su ay muy sa baay bokk comme yow sa bopp nga am te bëggul la bokk ne fareex na nga tàggaloon abaka sa baay isa ma abaka su la bañee wa na nga tàllal asibaka ay fiir na ak ne daal nekk ci ko bi ko rek dal demu yëfu wasaafi na ngay sellalante al xalila xarit na am na ko takkatoon koo xam ne du ngeen humpante du ngeen humpante musaafa mooy yàgg ni du ngeen humpante wasaafi na nga sellalante al xalila wanaa bi na ngay dàqwante al baxila aji nay su ko defee ko ñi wut yàq ko bul nangoo ànd ak moom waaw li ñu ne méngale aljamiil aji rafet su nit ñi dajee itam xatal na jël nga am jox ba wàllu na nga toppale almina ay waaye li yëpp nag bu la de ah walus na nga wéeru de bil mata bi ci tuub amaama si kanam dem waaye kenn ngay dee nga xamul moo tax wóoru ah, <laughs> walus na nga wéeru bil mata bi ci tuub amaama si kanam dem de li moom bul nangu dee fekk la ci waaye na nga fexe tuub ndax fa man daqa ku bëgg na baaba karimin bunta karim fataha muul arab wax na ci léebu ne man daqa baaba karimin fatah mais karimal boo ko mu bil kon da ngay ko duggoon ci biir rek balaa demee neneen xaaris ne ma wax la waa ñaal ko ma ko baxin baxin mooy eskay eskay baatu baatu na baatu la ne ko baxin baxin eskey eskey li rawayati ngir sa sol dëgg fasaatu lisaani ak neex kàddu ci wéyeg wisaam xaw ma kenn ku ma la ci yemal waaye wu uppin cam wu tuppin te cam nga rawayati ke ci sa ku seet kàddu day jar nga lu ne mais ku seet jikko jaroo dara loolu la ko wax kàddu de moom jar nga lu ne waaye ku ne jikko de jaroo dara <laughs> baxin baxin mooy eskay eskay li nga waaye ci kan ngir sa sole waaye wa uffin cam wa tuffin cam uffin tuffin it baax la li nga waaye ci kan ci kan waaye su billahi kii na di yàlla min ayil ayat yan cosaan la tukkee xeetu ka sa cosaan waaye yow ana foo bokk ana ji ñoo bokk faqat axda la nii gëlëm lottu loo na ma xawisu ka sa jafeñ dara man mun maa xam parce que démb gisoon naa la jàpp ne yaa gën ci nit ñi ma tegoon ko foo xam ne jàpp naa ne dëgër na te itam ma gis la jàpp ne yaa gën a yées te dëkk bu xam ne dëgg la lu ci déggal nag laa bëgg a xam ndax ñaari moom di yàgg dafa am koo ne mën na rëcc bu laa ko yee di yàgg yàgg yàgg mu tegu ci yoon rek mu am koo xam ne man la jag bu tegoo ci yoon yàgg yàgg mu teggi ko loolu dañ ko defoogee ci cosaan moo tax mu laaj ko ana bu dëkk suba dana xam lii jaar jaar la waaye la mu ko gisee woon démb mooy mbiram wala mu xam ne lii mooy mbiram la mu ko gisee la loolu tax muy ko laaj ko dëgg waaye est-ce que dana ko waxal loolu <laughs> ci nekk est-ce que dana ko billahi gis naa ci yàlla min ayaat yan cosaan la tukkee xeesu kasa cosaan xees mooy cosaan dégg nga fa qanaada la nii lottaloon na ma awisu dafa jëfeñ man daal mën a guma laa xam daal fa xaala mu ne ma ma wax mu ne ma man nag maa waxee guddeen may sob xalu si yaaw may wóor la naa ni ci man man nag ne la maa yi kii moom kii moom wala kenn dafi nekk soo kën nii dana jinju xanaa ma jinju su fekkee borom xel la ah xamee ci jinju bi soo dul borom xel ah sam ndax wéyee la la jigéen jël ma dara waaye man du ma la wóoral kéem maa la junjal na soo dee borom xel ah xam ne di junj soo dul borom xel nag ah sam ndax wéyee la soo réer rek ana utrubatu zamani wa ojobatul umam wa ana xuwalu la jaxtaala fi l ardi wal ajam xayra anni ibnu haji kin hadahu dahru mahtatam وأبوسية كتب مثل مثل لحم على وطن وأخو العائلة المعين إذا احتال لم يلم loolu la wax de mu ne ana man utrofatu zaman may kéemaana jamono man may ki nga xam ne dafa mel ni maye la bu jamono di jox nit ñi ñuy reere kéemaana jamono la wax jóobatul um de kéemaana xel nit ñi seen kamaa seen kéemaana waana man aquwalu may fexe kat alladi bi nga xam ne inkaara fexe na mu fil or bi ci arab yi wala ji ñaama jëñ man may bay tax bay pexe mi nga xam ne fu ne lay ñu wax xalaat ñu mu wala ñu xam ne ñu daal waaw yëpp xam ne ñu waana man aquwalu may fexe kat alladi bi nga xam ne inkaara fexe na fil or bi ci arab yi wala ji ñaama jëñ ne alxaylu wallaylu walbaydaawu taarifuni walxarbu waldarbu walqitaasu walqalamu kàllu bu baax a baax waaye wal musanna bi ma waxee bu daw la na ko ñu dul dara nii gën a leen di sefa duñu ñu morom kenn te bu yàggee dal ko xam gis nga man jàmbaar dëgg laa liggéeykat dëgg laa itam hmm. parce que xam nañu ma hmm. guddi yi xam nañu ma hmm. xàll yi xam nañu ma xare xam na ma këyit xam na ma kalima xam na ma boo soxla jàmbaar man moom laa boo soxla liggéeykat man moom laa boo soxla adib man moom laa sa yaalamul jamoo min man damma majlisuna bi annani xayru man dafa biir qadamu alqaylu wallaylu walbaydaau taarifuni walxarbu waldarbu walqistaasu walqalamu jëm إن سبدي وإن كنت تنكر حالي بالغرام وما ألقى وأني في الدعواي متهم فالليل والويل والتزيد تزهدني والحزن والدمع والأسواق والقلم الأسواق يا كان لله وحده والأسواق والسقم fal xayl fal laylu wal waylu wattasfiidu tashhadu li wal huznu waddamu wal aswaaqu wassaqamu mu ne su fekkee ne li may dañ métti na ngay wéet guddi mën na maa seede mbuga li may dajeet mën nañ may seede jaaxle yeeg joy yi mën nañ may seede xopp yi mën nañ may seede yéen menn mbir la moo xam ne dara ji kii mujj na ci li nga kii na wéyee wéy njàmbaar am na ci cër procéé am na njàmbaar am na ci cër liggéey am na ci cër saqaafa am na ci cër ci wenn wéyee moo tax gaa ñi koy xalaat sax dañ ciy xuloo di ci weerante di wéy ci ànde ndax nu xel mi soree ba weesu am dégg ne di wutee xel mi moo man al uwalu may fexekat alladi bi nga xam ne ihtaala fexee na fil urbi ci arabi wal ajam xayra an ni ndare man ibnu hajatin borom hajo la xaadahu kon damm na ko addahru jamono fa tadama mu damm waaye nag dama loru xel bi nga xam ne moom laa xam moom moo tegee sama kaw dafa mérite wala ni may xamee waa boo simetin bàyyi ay gune laa ba daw ñuñ fay nañu mel la lax min de kem yàpp ala wata min koo tàmbali buut dama mi jaboot su ndaw nga xam ne ñu loru la ñu loru lañ may dox bu sukkunde waaxulaay la ci borom al moyen la ci daal yu bëri njaboot ci sa taala bu fexee lam yu lam defu ko yedd xam ne boo ko ñàkkee te am yu tegee sa kaw bu bañee sag saggeeku la ngaa def li sa jëm kenn war la ci yedd am de la wax waaxulaay la tii borom ak ñàkk ak moyen li courage yu bëri njaboot isa taala bu fexe lam yu lam defu ko yedd waaye ndax topp doon njaboot mooy nekk lii bi baa bi dana tàngaram bi kon xanaa jomb daal dafa nekk bonu lay du tere lay waaye li mu waxoon du lay leen dafa dëgg kon ñu jàng lii ndax day rëy ci lenn pour ci benn waaw loolu topp doon jëmo ndax déggo naa nekk ni ñu baal bi naan daa nga xam nga déggo dafa doon rek bonu lay du dara lay rek waaye li mu wax moom tegul maan waa man nag pour man suuf kuy waxle daal ki ma doon man naa pësin koy borom xel xamee ci pësin bi boo dul ko wax ba mu waxee xaala wax na aju solo xaarit wax ne faaratu maqam hiina isin ca boobale ne an na woo kon abu seydin abu seydin la bi mu wéyelee wéyi rek laa xam ne abu seydin la su rey bi kay borom sikk wala ay bi tey borom sa naa dëgg reeraat num du daal moom boo xel génn ca daal wa mu sawidu waje sëy bi te daa ji ñuulal calmaayel bee jaaw mag dëgg waaye dafa suuf kawar gi niru gune rek mii sa woo mii sa mu subaani yépp daal abu saydin la rek wasaani naqadi maa xet xoog mu tamarrudihi màgg ak pétérlum wa xubwa tawarrudihi ak ñaaw ak rootam ci jikko yu bon mu ne maam lu ma naqadi torop nag ci defin yu bon yi muy daal ak pétéer lu gum weesu ak naqadi moom sax xam ne koo daal nii la ko tuddee daanaka gàcce la mu ne mu xam nga ko de kii daal ko tuddee <laughs> ko tàggoo wasaani naqadima xosmu tamarudi màgg ak féetérlum waxumu tawarudi ak ñaaw ak rootam ci jikko yu bon yi fa qultu wax la woo ñaar ko ma dal ko wax bi lisaanin anafati ci làmmiñu jomu mooy mere ko trop ndax am nga koo daal dëgg dëgg ko tuddee léeg-léeg daal dafa am muy demee wa illaa lil maarifati ak njàmbaar ak xam ak itam ñaare boo ko xamee ak nu mu mel rek xam na boo sax ko moom du ci laa ko waxee ne ko alam yaa ni xanaa jotul lakk la yaa say xanaa yow suñuy góor an taqala an tuqali a ba nga buddee ko caaxaan caaxaan rek ba kañ foo ko xàpp nag mu loolu la ko caaxaan rek caaxaan rek lu dul rek ba kañ foo ko xàpp nag alam yaa ni xanaa jotul la ka ñaar la yaa fee xanaa yow gi an tuqali a ba nga budee ko ak ani xanaa walis lu bon fatada jara mu yokkat mooy mu changé caractère na xandere lool wasam jara mu yëmmu mu batal baat bu jàng mel ni ak gaynde ci sama kaw watana karam mu fakkal ci sa mu soppi jëmm ji mel ni du kama xamal ba fakkara mu xalam commencé def xelaat xelaat bi yëpp nag xelaat nu mu jagalee lim def rek la waaye xelaat ne war naa dëpp dugg de fataba jaram mu yokkat wasam jaram mu yëmmu mu mu gëdd ma mu mel ni ak gaynde wata nag karam mu fakkal jëmm mu fakkara mu xalam waaye dugg ma nan lay ba mu jag mu xalaat xalaat summa xaala topp wax bu mujj ne ma inna yaa guddi gi laylatu mirayin guddi siigare laata lay na bi yendante mu ne fii fois bi na fii dëgg indi fi nit ku am dëgg doo ko waxee bëgg dëgg du fi indi inna guddi gi laylatu mirayin guddi siigare rek laata lay na du affaire yendante wan wusatu sur mirayin màngak naan sàngara laaj ki fayin waaye du bëttal affaire ñàng ak waxante dëgg ak yooyu loolu dëkkul faat di bay amma wëli li nga xam ne bada feeñ na ilaa na talaqa ba ñu dajee xadana la soo amee lay wax dañ di ko ba ëllëg fii ku bëgg dëgg ne woon dafa ñëw mooy dëgg dañ di ko ba ëllëg xaaj ne na fa baaraatoo ma tàggaloon moom man nag booba laa ko fa baax faraxan ngir ragal minaar bëgati jikkoy mandi katam ndax naan ko sàngara say say la mën naa ko toroxal léegi léegi boo jàkkaarloo sëri ko rek baaxuñu ko waratoo ma tàggaloo ko man daal booba laa fa bare faraxan ngir ragal minaar bëgati ci jikkoy mandi katam ji la taalluqan waaye du ngir haju bien de ti ci dëxalam li ma naan xaaral ba suba ma bàyyi ko fa bàyyi ko ko ko dara suba dama xam ne kii ni wóorut a jegeloo yàgg rek kenn bu baax a baax wa bittuma fanaan laylati suma guddi keroog laabisan daaji hoddoo xidaadan nadami yëree réccu ala naqali ci sama toxal xotal xadami jeegoy ndëggu ilam natil karmi jëm ci doomi sing lal karami waaye du tedd ga mu nekk guddi goo xam ne guddi gu mu ko mel ci naqat dem ga ma dem ca baar ba ndég bëggoon Abu Seydi fekkee ko loo xam ne la mu ko déggee woon na tane lu mu ko naqadee weesu naa ko dem gëma dem ca baar ba sax la jëkkëri wa bittuma fanaan lay la tee sama guddi keroog laa bisan daaji wattoo hidaatan na dem yëre réccu ala naqali ci sama toxal xotal xatami jéegoy ndëggu ilam na tin karmi jëm ci doomi sing lal karami waaye du tedd la waatuma kóolërante allah yàlla taala kawe na allah ahdura ba den may teewalati banda hay ci gannaaw guddi gi xaanata nabbadin bitigu jaykatu sangara wala ootil donte joxeef na ma mul ka baxdadi nguural baxda lu xala ci boobu la giñ fu ñu ma sangara su ma doon xelif baxdaad de buur ma man lu ne itam dara jàll sama taxaw waan la asara ak bu dee muy teeweeti mais farata sara bi naal naluwaay naan ak sàngara wala rudda donte delloot naa lay ci man alu sabab jamono yi ndaw wala génne su ma doxatul gune te itam bu ñu lëggee sàngara moom su ma tànk dootu fa takk su ma doxatul gune tey tey bu ñu lëggee sàngara sama tànk dootu fa moo tax waan la asara ak bu may fekkeeti min sarata sarabi nalu waaye naan gi wala ruta doonte te lof na ala yeg ci mën a su sabab jamonoy ndaw inna naa topp ñun nag waxtu taxlisi ci mooy suba teel raxal naa dañu tegal alens gëlëm ñu béy léegi nag na fooy jaar ak dinañ ci waxalay na ñu bàyyi bay na sayxayni diggante ñaari góor ñi abi sayrin wa iblis ñu bàyyi abu sayrin seetaan nañ am si yéen